bokki taalibe yëpp ndigal lu bàyyi ko si sëriñ bi jëm si njaboot gi yëpp muy njabootuk Cheikh Rafal gi waaw sëriñ bi wax ne dibéer ji ñu jëm bëggoon na bu ñu xëyee nun ñëpp ñu daje fi xar yi nga xam ne moom la ñuy waajal di ko yóbbul jëwriñ moo di Modou xaa nu def baaxoo na nu baaxoo woon a def rek sang leen ba nu set waaw defar leen ba nu jekk nga xam ne bu altine bu nu xëyee rek incha allahu jëwriñ yi teew fi sëriñ bi jox jëbbal leen ko ñu mën ko koo yóbbul jëbbal ko Cheikh Modou Mountakha kon nu xam ne dimanche si la ñuy sang xar yi waaw nañ ko baaxoo rek kenn ku ne jumtuwaay yi nga xam ne moo ko daa def ak ñi ko daa taxawu ñëpp rek ñu maase xam ne dibaar dimanche incha allah bu nu xëyee dinañ ci xëy bu soobu yàlla def ko ni ko sëriñ bi bëggee waaw su ko defee yi si jar jar mottali yëpp ñu mottali ko ba bu altine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 Darou Bayré Fall TV, la première scène qui valorise la vie et l'œuvre de Mam Cheikh Ibrahim Fall.